Dakar notre plateforme d'information. maaleykum suñu mbokk internet du Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois rek ah, donc également fii ñëwoon nañ fii ah, temps yi passé mooy gaz bi nga xamante ne nii moo explosé woon maanaam ñun bi ñu fiy ñëw ah, donc trois morts lañ fi gisoon avant bi ñuy dem ñu gisaat fa quatre morts donc dañoo toogaat ay jours ba ci tey rek ñu déggaat information que Euh, huit personnes ñoom moom moom moo ci mujjee ñàkk bakkanam avant na keneen ku ci ñàkk bakkanam mu nekk huit euh, personnes également dañoo ñëw léegi sax ñu ñuy euh, annoncé le maire Barthélémy Dias jóge na fi léegi donc moom moo tax ñu ñëwaat fas yéene waxtaan ak suñu frère bi nga xamante ni ba affaire yi amee bu ñëwee moom it amoon nañu waxtaan ak moom ci lu yaatu yaatu te balaa boobu dañ cee jox mu nuyoog mbokk internet Feeling Dakar TV yi ñuy seetaan après ñu dikk moom ci waxtaan bi jàmbaar maa leen di di la sant a baax. Euh, comme ni mu ko waxee euh, bu décès bi amee woon maanaam ngeen amoon trois morts yi ñëwoon nañ euh, donc nga wax doon wax ci ay révélation ak nu mu demee donc ñu toogaat léegi jegaat dafa amaat keneen ku gaañu mu nekk huit personnes ngeen nekk ci koñ huit personnes ñàkk ci seen bakkan ci jéye ji nga xamante ne amoon na fa loolu lan lay def ci yéen en tant que jeune. ñu koy def isaan ñu sax lan la mën a def si yaram nii. laaj ndax dañoo jaaxle waaw. dafa garaaw gars yi dañuy booy nag waaw. Ah. Ah, bi affaire bi amee donc biñ fi ñëw trois personnes moom moo fi moom moo ci ñoom ñoo ci génn àddina ñu demaat ñu war quatre personnes ah, donc cinq personnes bi jàpp sixième personne bi ñooñ dañ leen xamoon ñu dëkk ci koñ bi wala. waaw ci koñ bi dëkk booy mujjee gaañ ni moo kii ay frère rek moom booy bu ndaw la suñu la sax quoi foofu na waaw. gars la war a jël à sart booy toppatoo wuñ leen carrément quoi loo ma leen sonal nii billaay ay dëkk boo xam ne mënu am ambulance léegi-léegi am na choc bu am fii nii de temps ambulance mu ñëw si corbillard day mujjee dugal kenn ki bi kii dugal si corbillard mujj na ñàkk bakkanam kenn ki moo te ambulance bu mu ñëwee amul circuit dana àbb si jàkka circuit teg ko si fi ko teg fii la si koñ bi intersection bi ñëpp a ngi foofu soo demee foofu di nga gis deret yi foofu noonu si kaw tali bi d' ah, accord ah, comme ni nga ko waxee kooku nekkoon seen frère ki ci ki nga xamante ni moo ci ñàkk bakkanam tey boo amoon ci ay témoignage wala ay seede yoo ñuy wax ci moom lan nga ñuy wax booy moom booy bu cool booy bu jour la ren ñoom ñoo jël coupe bi coupe du maire bi ñoo ko jël booy mi nooy fuwal waaw jour la ay bi saa yu xew lay day dem lépp waaw fii ñëpp a ko xam booy yëpp ba ba léegi léegi nii mun mën a gëm ni carrément booy bi wàcc na liggéey nii waaw affaire daf ma daf ma traumatisé mun ma gëm ne ba léegi booy bi gaañu. waaw lakk bu mel ni am seen koñ donc ñu gis ñu bari eh, ñu nga xamante ne nii ñàkk na ci seen bakkan loolu lan lay def ci yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkk ci kër gi rawatina ñi nga xamante ne yéen a dëkk ci koñ. ñu koy dañ jaaxal ñu ngi koy ñaan yàlla rek ñoom itam yàlla xaareel àll ñu ngi fi des yàlla yéexee te jamono jii fii toll nii. temps yi jaxa jamono moo jaxasoo carrément billaahi doo xam lan la ko waa waaw. huit personnes yi ci ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp bokk kër wala. ñoom ñëpp bokk kër famille la ñaan yi ñooy jànk yi rek bon yi. bi loolu amee ñu bari sax bu ma fi ñëwee su ma am na say xarit yi nga xamante naa leen ah, ñoom ñu bari sax amoon nañu yaakaar ne eh, ñi ci nekk ci des bokk ah, foo ñu am amuñu bu ñu amul chance bu baax donc duñu duñu dund parce que ni ñu leen gisee woon ak yu demee noonu ah, dafa mel ni sànq yaa ngi wax dañ leen négliger ak yu demee noonu est-ce que am na bu ñëwoon jël leen du gën a gën a yomb que ñu jël leen teg leen foofu comme ni nga koy waxee deful leen ñu li war est-ce que nekkul loolu waral li nga xamante ni mooy moo loolu moo am sax loolu moo am booy da leen seetaan booy da ngay seetaan yoo xam soog ami lakk am na yoo xam ne ambulance ñëwul ba léegi nii sapeur moo ñëw oto ndox fooy dugal nit yi léegi-léegi soog amaat foofu oto ndox moo ñëw gars yi nañuy jënal sapeur bi ambulance moon gars yi di dee nii comme ay affaire comme ay ak doo xam te looy wax billaay wallaay dafa métti de billaay dafa métti benn kër huit personnes onze dañu woon instant huit trois personnes moo des donc yàlla na yàlla dimbali rek billaay wallaay métti waaw amoon message booy jàllale aussi lan ngay jàllale man laay jàllale ambulance nañu jënd ay ambulance bu jugee Dakar moo ñëw fii Dakar biir Dakar jëppal amul ambulance oto ndox moo fa ok ñu ngi lay jaajëfal jàmbaar seede Ousmane maa leen euh, ma sew ci li nga xamante ni jot nañ ko dégg sànq euh, donc actuellement euh, lakk gi fi amoon buñ fi jigéen ñu quatre personnes lañ fi lañ fi déggoon ñoo ñaak seen bakkan ñu toog rek déggaat ne dem na ba huit ba tey la kenn am ku gaañu nga dëkk ci koñ bi loolu am ci lool lan lay def ci yéen ñi nga xamante ni yéen ci koñ bi. Ah, ñu lay fay di la delloo ziar alors ñu na rek métti na ba fu métti yam parce que onze personnes ñoom ñëpp même famille. ñuy dem di dem di dem ñu leen di seetaan di leen seetaan di leen seetaan ba mu des trois personnes métti na mais dañuy delloo lépp suñu borom rek santaat yàlla bu baax. waaw mu jee wàññeeku xam nga ko woon. waaw ah, suñu boy la suñu boy la boy bu bu bien boy bu cool. billaay wallaay boy bu baax boy bu yaru. waaye yàlla moom bu ñëwee moom kenn mënul ko coow moom sant rek waaw sant bu baax xam Euh, comme ni nga ko waxee mu nekk seen booy nekk seen euh, xarit ngeen ñàkk mel ni kooku lan lay def ci biir koñ bi rawatina huit personnes ñàkk ci seen bakkan. waaw mënuñu ko amaat mënuñu amaat ku mel ni moom parce que nekk na booy même génération la mais booy bu booy bu booy bu cool quoi booy jantal booy. billaay wallaay taalaay parce que met nañu trop trop trop mais mënuñu def loo xamante ne si day ñëwaat loolu di ko ñaanal rek. ko ñaanal rek di wax i di lancer un message ci ci ci état bi quoi surtout lool di leen ñaan parce que dëkk bi fii ñaan rek nga mën a def ñu des ñu xool nu ñu leen jéem a évacuer yóbbu leen faj leen te yàlla rek tax ndax moo ngi fi te mun nañ ko bonne volonté yaa ngi fi tey ñun yàlla xam na ni buñ ko amoon wala buñ ko mënoon tey kenn waxatu dafa mel ni ma déggee seeni wax même sànq sa euh, frère bi ma jël sànq dana wàllu négligence dafa am euh, maanaam mi leen war a faje fajee dafa mel ni loolu nga bëgga a waaw parce que yow tey nit cas mënul ñëw ne cas grave yow ngay naan pommade bu koy war faj dafa manqué erreur rek weesuwul loolu tey fii nii moto yi jour boobu atelier yi fi nekk yëpp dañoo wàccee seen moto yi fu ne. billaay walaay am na commande jógee ba Casamance ñëw barki Serigne Ba. man maanaam ci wàllu wër pommade yi wala. pommade yi parce que da nga koy statut am na ñoo xamante ne xamuñu booy wi sax dañuy jàllale statut yi pour jot nañ ay commande yu jógee Casamance ñëw ci ay pommade mooy pommade boobu ñu ne woon mooy faj lakk-lakk mais loolu noonu tey du yoon quoi. wallaahi dafa métti trop. moom mooy xool euh, ci li nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan presque ñu ci bari ay xale lan loolu lay def euh, ci yéen ñi nga xamante ni yéen a dëkk. waaw daanaka ñoom ñëpp ay jeunes lañ seen papa yi du ñu ay mag-mag yooyu ndax ñoom ak suñu papa yi ñooy ñooy demalante xam nañ leen bu baax a baax baax du ay mag noonu mais nañ leen ñaanal rek ñu ñaan yàlla mu yem fi rek ndax leneen lu dul lool amu ci. lan ngay dénk famille bi. ah gëm yàlla rek parce que ñoom ñaaxuñu ñun ñoo ñaax.